magoog mbokk yi sant nañ leen gërëm leen jaajafaleen bu baax a baax ci seen émission gindi di am euh, alxames ju jot ci wàllu fajiri al juma ju jot euh, ci euh, solution TV ñu waxtaanee lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu xam-xam suñu jataay bii moom ci heure bi bu ngeen ko gisee bu leen laajte ñoo ngi ci dalal Serigne Abdoul Aziz Diaw di nitu yàlla ko ki nga xam ne ñu ko xam ñëpp ñu ngi ko xamee ci li nga xam ni mooy fas yéene gëstu ay xeeti xam-xam. ak fu ne ci réew ak biti réew ngir faj aajo yi doomu aadama yi ci yu bare bari nag ñu xam ñu bu yàgg a yàgg ci at yu yàgg ñu koy ànd mu nekk loo xam ne lu am solo la ma nga ci Thiès ci jamono yi boo wàccee piage bi rek juste après première euh, rond bi nga njëkk a jot ci station boobule boo jëlee tuuti rek grand rang bi ci sa droite bu dee da dugg Thiès bu dee da ngay génn nag moom boo ñëwee ba ci station bi da jàdd ci sa euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, càmmiñ numéro yaa ngi noonu 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 ñoo ngi ñëw léegi incha allahu rabbi wax leen lan la ñuy waxtaanee Baye Assane Mesere. jërëjëf ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di siyaare Abdoulahi Diallo mi nekk ci technique bi ak ñëpp ñi nga fa nekk. Mm-hmm. di siyaare bu baax ñi nga xamante ni ñu ñuy seetaan. di leen gërëm waa di siyaare bu baax sëriñ Abdoulahi Ndiaye moom sëriñ Jim Ndiaye euh, Kaymoor ñu ngi siyaare waa Kaymoor gépp di leen ñaanal suñu borom defal leen tawféex waaye di sàkku si ñoom ay ñaan di ko nuyu moom sëriñ Abdoul Asis Diaw di ko ñaanal suñu borom yokk ay xéewalam teyit eh, lii nga xamante ni mi ngi koy taxaw si tawate doomu aadama yi di si am ndam ndam loolu yàlla na sax si barki yonent bi uh-huh. képp koo xamante ni daal bu ñëwee ci moom suñu borom dogal mu am ndam yàlla na ko yàlla gindi indi ko ba mu egg si moom ay eh, bëgg-bëggam suñu borom dëppali ko li ko sëriñ Abdou defal soñu uh-huh. jërëjëf Baye Assane Mesere ci nuyoo bu boobu boobule sëriñ Abdoul Aziz Diaw moomu la ñuy jox kàddu yi mu nuyoo sénégalais biir ak biti réew sëriñ Abdoul Aziz Diaw aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim uh-huh. rabbi habli hukman wa alxiqni bissaalihiin alhamdulillah ala nihaamihi alqaaili fi kitaabi alaziz uduuni astajib lakum wa usalli wa usallim ala sifaahi alabdaani walquluubi wal arwaax sayidina muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa aqusu abraka tayaat li saahibi solution tv sil injaazaati alkubra alxaaji Sanjoogu Mbeng wa mudiri solution tv sëriñ Sohaybu Jóob wa saalisil ahdaa i baay asan mesere wa li kulli man yusaahiduna aw yastamiu ilayna wa adoxo tahiyaat li soxamaa diinina fi yadi seex abdallahi sëriñ jim njaay yuballiquha alayhim wa uhayyi soxamaa addunyawiyin wa rais xisbil pastef mahalla siqati sénéqaliyin wal ifriqiin sayidina Ousmane Sonko wa wafaqahu llahu li maslahati sénéqaliyin wal ifriqiin wa sukran lakum wa antazir ma indakum min al asila wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu mhm. wa ilay unib salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mhm. sony bu ginnaaw bañ sante yàlla julli si nunti yàlla muhammad sallallahu alayhi mhm. a a a mag yi alaaji Sanjoogu Meng noonu lañ leen nuyoo bu baax yow directeur Solution TV di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla defal la tawfiq ak taysiir ñu ngi nuyu ba alaaji Assane Mesere ak képp koo xam ne yaa ngi jàpp si liggéey bi sëñ Fallou Gumbala sëñ ah, Top koo xam ne yaa ngi si liggéey bi rek mhm. ñu ngi lay nuyu di leen ziyaara noonu la ñu képp kuy topp solution TV ak Walfadjri si biir réew mi ak bitim réew mhm. di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq ak taysiir mhm. di nuyu bu baax kilifa diine yi suñ nuyoo si ñoom nag ñu ngi ko tax si loxo si Abdoulaye bi Sëriñ Jim mu jotal ñu bu baax ki yàlla teg si bopp réew mi alaaji Macky Sall muy borom gaal gi di ko ñaanal yàlla defal ko mucc gu mat nag tamatale noonu la ñu nuyoo nag yàlla jiital si xoli ndaw ñi muy yaakaaru Afrique ak Sénégal ku ndaw ñi tiitaroo te du leen tiital borom natt yu bari yi alaaji Ousmane Sonko di ko ñaan yàlla defal ko taw fii ak taysiir natt yëpp yàlla yàlla wëlbatil ko mu nekk bànneex bu mu ñuy jariñoo ak réew mi jariñoo ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu amin waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Abdoul Aziz Diaw mi ngi noonu ci nuyoo bu matale bi kon mbokk yi li ñu bëgg a waxtaane tey rek incha allah daañu waxtaan ci mbàquk bëy ak mbàquk xar nag damaa jàppoon ni man li ma ci xamoon asan bëy wala xar lu ma ci rey mbàq gaak yooyu yëpp sax damay jël sànni ante ni waaw yow doo ko sànni sànni loolu moo gën a saf ci man dama koy sànni moo gën de loolu lekk si kii bi loolu ko gën mbàq gi waaw non Assane na ngay wax rek yow. di caaxaan de bëgg nañ ci mbaxal mu tooy lool. ah, ah kon tey mbaxal baat loolu lañ bëgg a waxtaan. ah ay secret. kon mi ngi noonu mm. loolu daañ ko waxtaane mbaqu bëy mbaqu mbàqu xar bu ñu ñëw ci secret sëriñ mm-hmm. lan mooy secret sëriñ incha allah wax ci ci lu turu yàlla mm-hmm. waxtaane nag it itam tey plant bi ñu jël mooy daqaar daqaar duy daqaar naan daqaar a saf ak natatu kaani saful dara <laughs> gaa yi dañ lay tegal bit de boo moytuwul yi ngay def gaa yi dinañ lay tegal ab bit. ëpp naa def de defaatal nga ni <laughs> <laughs> kon jox naa la point yi def naa ni kon nag. Mm-hmm. yaa amee laaj yi. Mm-hmm. bu ko defee ñu dugg ci mbir yi laa njëkkee. Hmm? en tout cas daal jox naa la mbàqu xar ak mbàqu béy ak sekkari sëriñ ak ngëneelu turu yàlla ak daqaar mm. am solo kon damay dem directement rek si mbàq yi incha allah sëriñ Abdou mm. mbàqu béy ak mbàqu xar mbàq nag gis nañu ni si biir am na ay yeneen yu nekk si biir gis nañu sax ab diggante ma am na poos yu bëree bëree bëri poos yoo xam ne dañoo denc am na ay wexte nag lu nekk si biir mbàq gi ak restes yëpp lépp si biir mbàq gi la mm. nekk lan moo nekk si biir mbàq loo ñu bëgg a mooy sécurité wala prostitution wala kaaraange mm-hmm. dama naan képp kuy ut kaaraange mm-hmm. te dajeegoo xam-xam bi demal kaara kaara ngaa ngi sa kanam àgg koo nga jëm àgg fa nga jëm maanaam képp kuy yëngatu si tas taxsin si mm-hmm. musluwaay si protection te dajeegoog secret bii di ànd nag mbàqu xar ak mbàqu géej gi li ngay ut ma ngi sa kanam àgg koo fa asan secret la boo xam ne mag ñi lu ne la lu ne lañ ciy def euh, xam-xam bi tabat yi daal ngay bind tabat yëddaa am noo koy bindee. Hmm. ak genre melokaan bi ngay solu. maanaam hmm. du tam sa yére ngay solo. toog liggéey ko dafa am na ngay soloo. Hmm. nga liggéey xam-xam benn yoon si bis bi nga koy bind jëfandikoo ko si bis bi. mbaqu bëy lay ànd ak ak mbaqu xar waaye day ànd ak cabinet yi. parce que xam nga ne ah, cabinet yi ah. bëy. mooy li nga war a sotti. waaw ak cabinet yi xar loolu nekku sobe. moo tax booy liggéey xam-xam bi pare dangay si mbaq gi mbaq bëy gi ak mbaqu xar gi day utaal ànd ak yi. nga def ko si saafara bi sangoo ko ñeenti yoon juróomi yoon si bis bi wala juróom-ñaari yoon wala ñetti yoon kenn du ko sangoo lu toll lu toll lañ koy sangoo mm-hmm. sooy bu mm-hmm. ñu yàlla may baatin ak basiira ñu mën a gis mm-hmm. nee nañ xam-xam bi ku am baatin song la day dof da dof ku amul baatin nag song la day dee moo tax képp kuy ut xam-xamu kaaraange te àggagoo si mbaq mbay gi ak mbaq xar gi yow na la wér wér yàlla li ngay ut ma sa kanam àggagoo fa farlul te seeti góor yàlla yi da nga te seeg moom nee nañ képp ku am baatin song la day dof ku amul baatin rek dégg nekku falaa falaa ñëw song la dafay jóge moo tax sooy bu secret la boo xamante ni mag ñi duñ ko waxe si pécc ñi te duñ ko waxtaanee fu ñett nit nekk lu doy waar la moo tax xam-xam bi mi ngi ànd ak mbàqu béy ak mbàqu xar tax siin la képp ku yàlla dimbale nga am ko benn yoon sa sa àdduna rek mucc nga ku yàlla bind mënuta laa gàllankoor ku mënta dekkil bay bi nga rey ba delloowaat ko ay butitam delloowaat ko ay mbaqam kooku mënta ak sa jëmu ci te loolu mu xàllat lu jomb la mhm. moo tax képp ku mënta delloo si démb muy def ko muy tey mhm. mënta dell mënulaa gàllankoor lu mhm. muy tegtale rek mooy nit mënulaa gàllankoor jinne di mënulaa gàllankoor rab mënulaa gàllankoor sooy bu réew mi ku fi nekk te amoo kaaraange da saxaar waaye doo takk boo farloo nag ba tàkk sa tàkk-tàkk bi du yàgg waaye da ngay fay moo tax képp ku bëgg li nga nekk sax yegg fi nga jëm te yàgg fa da am kaaraange waaw nit ñi nag dañ ko néewal ginnaaw loolu torop torop torop te mooy lépp lépp lépp lépp. Mm-hmm. man euh, Saalum. am naa si mag ñoo xam ne xam-xamu alxuraan la ñuy liggéey waaye lépp lu leen kaaraange jalal dañ koy def euh, bu dee laaj na leen ñu dem si ren yi dañ fa dem. bu dee laaj na la ñu dem si jat yi dañ fa dem bu dee laaj na la ñu dem si biir géej gi sax dañ fa dem pour uti kaaraange mm-hmm. ngir bëgg mucc réew mi nag ku fi mucc da nga mos waaw moo tax ku fi mosut doo mucc ku mucc mos ku mucc mos moo tax képp kuy fontoo sa dund bi wala ngay wanteer sa bakkan bi yaa ngi si éréel sooy bu képp ku bëgg a taxsin kaaraange gu mat si zaahir mat si baatin dama uti ñaari mbàq yi mooy mbàq béy gi ak mbàq xar gi mm. képp ku am kaaraange nag te àggago si xam-xam bi ne la wér-wér yàlla nga at àggugoo fa kon continuer ilal amaam mm-hmm. mbir maa ngi sa kanam insha allah mm-hmm. Mm-hmm. kaaraange la goo xam ne képp ku ko am yàlla muccal la si àdduna ak àllaaxira sa noonu du la gàllankoor jinne du la gàllankoor rab du la gàllankoor saay-saay du la gàllankoor léegi lii mooy mbàq ak léegi kii ñëw day yeenu mbaq xar wala bay indaale wala lépp nga fa lii ah, xam-xam bi pare da ñu ngi ko fa ñu ngi ko fa teg mi ngi barab li may bañ mooy jox ko nit mu sangoo ko ñetti wala mu sangoo ko ñaari fan sangat bi bis bi bis bi nga koy jot si nga koy sangoo ñetti yoon mu arrêté wala nga sangoo ko juróom yoon si benn ah, jotaay bis bi nga koy sangoo ñetti yoon si bis bi a fanaan boo ko jotee tey tey tey tey ñetti yoon nga sangoo ko juróom yoon si benn place wala nga sangoo ko juróom ñaar yoon si benn place rek mucc nga ah, ah, xam-xam bi mm-hmm. boo ko xasee jot mm-hmm. yow yóbbu ko sa kër boo àggee sangoo ko fi ñetti yoon si bis bi amul benn gàllankoor ku yàlla bind ku mënta dekkil béy bi nga ray ak xar mënatu laa ko dekkil. aywa incha allah. numéro téléphone yaa ngi noonu 77 571 83 wala 78 469 92 92 sëñ Abdou mhm. euh, nekk bitim réew deux personnes jël. bu dee fii ci biir réew nga woo ko nga may ko diir. Mhm. Euh, mu kiyal la man moom damaa damaa ragali mbiram moo tax du ma koy seetloo. boo seetloo dama koy waaj. Mhm. ndax xam nga moom tabaarkàlla waaw day yëfi day day mel ne torse rek moo tax <laughs> yenn saa yi ma toog ba rek mun ma defal lii wala saraxeel lii waaye man damaa ragalu ceet <laughs> aywa boo cee teg hmm, moom laa lay laaj te ma jox la sàppate la lépp xam nga yaay wax sàppate secret sëriñ si si nga del bind Assane dafay ah. dut nelaw loolooy problème te léegi la ko Sadio wax de ni ko del nelaw. kon kon farata la. Amina jëlee kurus gi Amina te non sëñ bi fan yi Amina newu fi. Ah. waxula ko <laughs> Amina newu fi. lu koy dee <laughs> ah, si am na si ah, bal nelaw yi <laughs> weer yi nga ci subaak li nga takk ci guddi gi nag wuute na yii yii rafet na waaw rafet na ah macha allah kañ la ñëw léegi yii yii léegi ah waaw ah, non non yii démb. waaw ah, yii rafet na démb la ñu merci. Euh, secret sëriñ. mais sooy bi. Mm-hmm. sirrul masaa'iqi li nayli manzilati suyuux. Mm-hmm. mooy secret boo xam ne boo ko amee dañ lay wàccee wàccuwaayu sëriñ si boo doon mécanicien sax mm-hmm. jëfandikoo xam-xam bi darajaay sëriñ lañ lay jox. nit ñi dañ lay ormaal da ngay am xaalis dangay am xabul da ngay am daraja da ngay am barke. Ah, baax na de. moo moom lañ tuddee sirrul masaïq secret sëriñ sëriñ si li nay ni manzilati suyuuxi ngir ñu wàcce waale wàcce la wàcce waayu su sëriñ si xam nga sony uh-huh. ñun ñëpp ay doomu aadama lañ te aadama lañ tuggee am na koo xam ne boo koy nuyu da nga ñëw teg ko loxo na ko booy grand si loo ne uh-huh. waaye am xam ne boo koy ñëw da nga ñëw teg ko sa ñaari loxo yi foon ko màggal ko uh-huh. tey muy doomu aadama ni yow am na lu nekk si biiram loolu ngay màggal moo tax secret secret bi ñëpp dëppoo nañ ne boo xam ngay baykat wala ngay commerçant wala ngay ambila wala nga loo mën a liggéey jëfandikoo xam-xam bi danañ lay jox darajaay sëriñ si wàccuwaay wàccuwaay sëriñ si nit ñi dañ la wekk dañ la naw da nga am xabul da nga am barke da nga am bayra da nga am xaalis mhm. secret bi nag temps yi damay bañ a ñëw li ñuy jëfandikoo secret nga di ko wax si alxuraan ndax pirate bi dafa xaw bëri lool waaye secret bi daal xam naa alam nasara bokk na si benn oh. lim si alam nasara la ko sa dara te alam nasara na si yow amul benn werante alquran la ne ma al usri yusra léegi nag euh, moom tamit bis bi dafa am ñaari bis yu ñu koy bind mooy altine ak alxames ngay bind secret bi moom tamit juróom-ñaari noo koy sangoo si bis bi boo paree nga dugub ju bëri nga saraxe ko asan mesere boo suufee woon danga nga yëkkati ko boo amutoon daraja danga ko am boo amutoon barke da ko am boo amutoon bayre da nga ko am da nga gis koo xam ne daaw daaw ji kenn xamu ko woon waaye ren di ko tudd ñëpp di ko waxtaane yàlla may ko xam am na euh, euh, na ñoo xam ne boo demee seeni kër da nga Mm-hmm. waaye am na ñoo xam ne boo jub seen kër ñu la diw sàngam ñu la doo raam doo taxaw mm-hmm. loolu nag daraja la innal fadla bi yadillaahi yu'tiihi man yashaa mm-hmm. moo tax képp ko bëgg am darajaay sëriñ dama uti secret sëriñ si nga jëfandikoo ko gis nga boo doon commerçant bu lambale sax mënatoo am boo jëfandikoo yàlla la doxal say mbir yàlla dugal la si xolu nit ñi nga am barke am xabul am daraja am teraanga am barke lii mooy àdduna képp ku bëgg yàlla yëkkati sa tur yëkkati sa daraja may la xabul may la barke may la xaalis jëfandikool xam bi dañ naan nag nga sangoo ko ñaari yoon si weer bi dañ koy tere benn yoon nga koy sangoo si weer bi boo ëppalee ba weneen ba weer beneen weer teeruwaa nga sangoo ko am na ñoo xam ne dañuy def at mu ne ñu sangoo ko ñaari yoon yàlla dalay may xabul dalay may dar barke dalay may euh, daraja dalay may bayra dafa war a ànd ak barke vraiment xaalis dafa war bayra mhm. am na ñoo xamante ne am nañu ay milliards waaye mënuñu see def dara mhm. foo leen gis dañ leen yërëm mhm. am na koo xam ne dañ naan euh, man sama oto bi mënuma see def essence trente mille génn luy taxi moo leen gën a jël seen oto bi dem xam nga loolu seen xaalis lu muy jariñ ñooñ seen xaalis bi moom mooy xaalis leen moom te it nit warta nekk jaamu yàlla bar warta nekk jaamu leneen hmm. yow xaalis waroo koo jaamu xaalis la war a jaamu mais est-ce que ñooñu dégg aaya bi yàlla di wax ni bu leen yàq waaw ah, euh, dof rek hmm? gis nga xam-xam sooy bu waaw xam nga liggéey xale xaalis bi far sa yàpp di ko yàq waa xam nga xam nga tiraanga moo tax mag ñi bu njëkk <laughs> mag ñi bu njëkk dañ daan dem fexee defaru seen xol bi waaw buñ xasee ba defaru seen xol bi xaalis dootu yëg seen xol bi hmm. xaalis seen loxo yi la nekk moo tax euh, nit yàlla dëkk nga mën a gis mu am milliard tey joxe ko bu subaa mu leb dépasse. ñoo ñooy sàngatu naan lu mënuma téye dara. loolu loolu loolu loolu loolu loolu baa doolu mënu ko ñooñ fexe nañ ba seen xol bi yàlla rek a si dëkk. àdduna mënu see dëkk te sa xol bi feeg xaalis seen fi dëkk. yow jaamu xaalis ngay doon waaye mënoo nekk jaamu yàlla. Hmm. moo tax sooy bu. Uh-huh. ñu gis ñuy bëgg wala ñuy rayante wala ñuy finaalante yu si àdduna lépp dañoo jël xaalis di ko jaamu.

mi ngi noonu jërëjëf sëriñ Abdou euh, xam naa de am na fu ñu demoon mag Assane ci weekend bee passé mu baal ma nag mu bañ a tudd turam waaye kañ fa fekk daal gone la hmm. waaye mag la tabaarakallah hmm. gone la waaye mag la hmm. ndax borom mi béjjaaw ngay fekk ñu ni groupe ca kanamam te jàpp naa ne am na loolu du barke baay kese am na lu ci rax ah mais su waxee rek nga xam ne tet tet gone gu ndaw mais ñi borom béjjaaw yëpp am xam-xam dañu réer ba pare ni groupe ci kanamam xam nga <laughs> waaw ba koy màkk tuddee amin waaw tuddee ko kuñ wóolu ki hmm. ay baayam sax moom la ñu wóoloo lu ñu ko daan am si teraanga lu ñu koy bañ bañ bañ moom ko daan dégg dëgg la moo tax am na xam ne bu nekkee si doomu aadama rek hmm. doo tudd yow leneen la dëgg la moo tax nit ñi bàyyi ko xel dafa am solo aywa kon jël nañ mbàq xar geeg bay gi jël secret Serigne Assane ngëneelu turu yàlla moo ci des ak Dakar ndeysaan ngëneelu turu yàlla ndeysaan lu ñëpp war a daw uti mooy tudd yàlla hmm. yàlla dasee wax si aaya yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri bëri loolu rek waroon na tax nit ñi rey seen bopp di tudd suñu borom mhm. yàlla wax na si alquran yaa ayyuha alladina amanu uskurullaha sikran kasira mhm. wa sabbihu bukratan wa sabbihuhu bukratan wa asila mhm. ee yéen gaa ñu gëm yàlla ee yéen gaa ñu gëm yàlla dee leen tudd yàlla tudd gu bëri di leen koy tudd suba ak ngoon di wax laa ilaha illallah di wax astaghfirullah loo xam luy tudd yàlla rek loo xamante moo xam bépp tur boo xam ne si turam yi rek da leen ko tudd wala ngeen di jàng alquran <laughs> yàlla waxaat si alquran ne alladina yaskuruna allah dafa am ñoo xam ne dañoo am daraja alladina yaskuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi <laughs> rabbana ma xalaqta hada baatilan subhanaka <laughs> mooy gaa ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla bu ñu toogee bu ñu tëddee dañuy tudd yàlla uh-huh. bu ñuy taxaw dañuy tudd yàlla uh-huh. bu ñu demee ba taxawatuñ toogatuñ sax ñi ngi xalaat waaye tafakkaruna fi xalqa samawati wal ard uh-huh. rabbana maa xalaxta haada baatilan subhanaka loolu daraja la si boo xam ne si niveau tur yàlla yi la mooy toog rek di xalaat péew yàlla bi asamaan si lu ko fi indi suuf si lan moo ko fi laal avant lii lan moo fi nekkoon après lu après lu fiy nekk xalaat googu sax day yéegal doomu aadama mu yegg si péew yoo xam ne kenn xamul lan la yàlla waxaat ci alquran ne wa zakirina allah kasiran wa zakirat mhm. tuddkat yàlla yu góor ñi ak yu jigéen ñi ahadallahu lahum maxfiratan wa ajran azima yàlla ne na denc naa leen kado mhm. mooy kado gu màgg te lu màgg si yàlla nag ëpp na si bëti doomu aadama mhm. ndax lépp lu tuuti si doomu lu bëri si doomu aadama yi lu néew si yàlla la yàlla lu mu dem ba tuddal ko ne leen dencal naa leen yool bu màgg koolu làmmiñ mënu koo tudd te it bët mënu koo mënu koo mënu koo gis xanaa xam nga sooy bu tuddkatu yàlla waaw feebaru kañaan day jeex si moom mm. te ko côté yàlla dëgg du am cancer. te du côté yàlla dëgg dëgg foo ko fekk day daal. Mhm. alquran nee na wax na. Euh, allah bi alladina amanu wa mhm. tatmaina qulubuhum bi zikrillah mhm. allah bi zikrillahi tatmaina al qulub tudd yàlla day dalal xel day dalal xol am na koo xamante ni am na milliard waaye foo ko gis day rap rap rek bu amul garde corps ñëmut a génn si mbedd mi dox waaye tudd ko ti yàlla moom yàlla day gindi di kiiraay boobu sa diggante ak ak jaam yàlla dalay may xol bu dal ak xel mu dal te dalay mujj si muusal xeeti gàllankoor jamono yépp alquran waxaat ne na waskur rabbaka wa wasabee bi xasin wala bi keer waaye doomu aadama yi leen tudd yàlla tudd gu bari mhm. da leen koy sàbbal suba ak ngoon guddi ak bëccëg mhm. loolu lañ ci doon indi si tudd yàlla mhm. dafa am benn saabu boo xam ne sooy bu ngir war ne nit ñi darajaay tudd yàlla maanaam tudd lépp la man dafa am benn saabu boo xamante ni mi ngi tuddoon abi darda waaw suñu mokkaloon alquran si jamono seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fukki yu mokkaloon alquran wala juróom-ñeent yu mokkaloon alquran si jamono yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam abi darda bi si la bokk saxaaba bu baax la sooy mm-hmm. Mm-hmm. mu am benn jéebéer amat mooy jéebéer mooy jàmbu jigéen mm-hmm. jàmbu jigéen bi bon lool soxor lool añaan lool pexe bu ne mu xëy di ko def abi darda mënu koo jàpp xam nga nit léegole yi boo jéemee si moom pexe ba si kanam da ngay waaru si moom ne ko yow lan nga doon dëgg la jaam bi dem ba si kanam mu ne ko min ay jinsin ant yow abi darda lan nga yow fan nga bokk mhm. yow nit nga am jinne nga am malaakaam nga rab nga am dëmm nga lu xew yow loo doom moo tax doomu aadama bu demee bu mu lu si yow dara danaa la jaaxal na ma mhm. ndaw si ko mais min ay jinsin ant mhm. yow lan nga yow yow ban xeet nga bokk ah waaw abi darda ne ko aadama ah, ni mis ne ko man comme yow laa am nga am nga am naa ndey am nga baay am nga am naa baay doomu aadama comme yow laa kay fa ndaw si ne ko kay fa takkuunu aadamiyan yow mënoo nekk doomu aadama mhm. moom xam na lu mu koy def lu mu ko def waaye Abu Darda xamagul la ko ndaw si def mhm. mu ne ko déedéet yow mënoo nekk doomu aadama ndax li ma la def buñ ko defee doomu aadama day dee mhm. ndaw si daal ko wax lu mu def naqad waqad atamtuka summan arbaxiina marra yow Abu Darda man posé naa posé naa la ñeent fukki yoon te nag ko maa daro ko deewoo loruwoo sa biir méttiwut abu darda de lii la ko jébéer bi wax jaamam bi boo xam ne da ko daan toppatoo moo koy toggal di ko defal lépp mu dem ba si kanam mu jommi si moom ndax pexe bu ne defal ne ko mënu si mënu mënu si moom dara mu ne ko yow ban xeet nga bokk mu ne ko man xeet benn doomu adama comme yow laa mu ne ko mënoo nekk doomu aadama ndax man posene naa la ñeen fukki yoon te loru woo déenoo deewoo nit ñi bu ñu leen posene benn yoon rek dañuy dee ah abu darda ko ne ko ah, abu darda tontu ko ne ko waqad alimtahu anna saakirina allah taala laa yadurum say an wa isa wa inni kunta askurullah taala bi ismil azam lu mu ko tontu mooy yow xanaa xamoo tuddkatu yàlla yi dara mënu leen a lor du poson du paaka du pexe du dara mënul leen a lor te man si tuddkatu yàlla yi laa bokk te man sax damay tudd yàlla si tis ismulaay azam si turu yàlla bu màgg bi ndaw si ne ko lan mooy tur yàlla bu màgg bi mu ne ko xaala huwa bismi bismillahi alladi laa yadurru ma ismi sayin fi lardi wala fi samaai huwa samiun alim ndaka abu darda heure bu xëyee dana liggéey bismillahi alladi laa yadurru ma ismi sayin fi lardi wala fi samaai huwa samiun alim lii moo protesté abu darda ba ndaw si posé na ko ñeent fukki yoon mënu koo jàpp yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne bismillahi alladi mooy secret bi képp ku xëy jàng ko ñetti yoon am nga sécurité si bëccëg boobu kenn mënu laa lool hmm. du buur du mulk dara boo ko jàngee ñetti yoon si guddi gi am nga sécurité si guddi gi mooy da nga fanaanoo jàmm te mm-hmm. te kenn du la mën a gàllankoor ñu ne Xaalid ibnu Walid ba ko ndaw si posenee mënu koo jàpp posen bi wàññiwu ko dara méttiwut biiram defu ko dara dafa xëyoon jàng secret bi mooy bismillahi ladi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa laa fis samaa'i wa sa samii'un aliim bu boo amee jabar mm-hmm. wóoloo sa jabar mm. ñam bu mu la indil nga jàng si lii tëfle ko si mm. ba si defoon posen ak lu mu si a def la jàpp mm. ndaw si ne ko lii mooy secret bi nga doon liggéey Abu Darda ne ko lii laa doon liggéey Abu Darda kontaan xam nga lu mu ko laaj. Mhm. ne man lazi xamaluka ala dalika waaye yow sama jaam bi lan moo la xiir nga def si lu bon li lan moo tax nga def nga def ko ndaw si wax ko dëggam ne ko dara waxul warul warulul ma def ko inni bokk dugg dama la bañ rek. Mhm. soo yu bañal yàgg na fi. am na koo xam da ngeen àndoon dem nga koy am teraanga bu bañ la waaw mënu si dara ndaw si amul dara lu ko Abu Darda wax mu ne ko lan moo tax nga def lu mel nii lu tax nga may posone mu ne ko innoo bu dëgg dama la bañ ko kon sone bu hmm. looy déggee si doomu aadama nga doomu aadama moo soxor hmm. da ngay ànd ak nit démb yàlla may la teraanga tey nga gis pexe mu ne si lay xëy si lay gont pour faagagal la ndaw si fi ko Abu Darda taxaw ak lu mu ko def mu di ko posé ne ñeent fukki yoon pour rey faat ba kanam. Oh. ndeka ku yàlla ànd ak di mun laa daaneel. Abu Darda. Oh. lu ko tontu ne ko euh, Anta Hurrin goreel naa la bis ni ko tey moo tax nit bu la lebalee lu bon fay ko sa baax. waaw alxuraan ne oh. nit ku la def safaan safaan rek. na ko delloo li gën a rafet li gën a sell. Ah, abu Abu Darda wax ko ne ko. Anta Hurrin li wajjillaahi taalaa wa anta fi ma fi xillin. ma mi maa sanaxta bis ni goreel naa la. sëñ bi kii mooy borom tedd jukkoy tedd macha allah koo xamante laa bëgg a rey hmm. chaque jour muy jël paaka di ko jam sa biir bi duggul hmm. nga dem ba paaka bi xam ne kii da bëggoon a rey hmm. nga ne ko jéggal naa la yëkkati alal may ko borom jukko man de aaya bi man man na am yoo xam ne dama koy jàng aaya bii nga wax man dama ko doon zikkar lu am solo la te xawuma ko lu am solo la lu solo la képp ku koy man astaghfirullah ak aaya bii waaw bismillahi alladi laa ma ismi fi lardi wala fi samaay huwa samiul alim lii yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na léegi li li lim la wala amul lim am na lim man nag damay wax rek am na lim ñetti yoon sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxee ne ko si waaw képp ku ko def ñetti yoon jàng ko si xëy bi oh. bëccëg bi yëpp yàlla dalee def ko si léegi booy wax lu bari nag boo koy def guddi yoon oh. ñetti yoon si guddi gi oh. muy juróom-benn yoon nga def ko si bis bi dara mënu laa lor suba am na benn saaba benn taalibeem da koo joxoon 400 fois pour mu di ko ñaanal Cheikhu Tidiane moo tax sooy bu ñi xam nañ tur yàlla te xam nañ sekkare te it jamono yàqu na yàqu goo xam ne Abu Darda bu dutoon day liggéey secret bi hmm. kon ndaw si bu ko pasanee benn yoon wallaay si asamaan hmm. ko si suuf bi nga di si biir émission bi macha allah lenn rek ko musal mooy mooy lii ayca bismillaahi ahsan bi jërëjëf sëriñ Abdou xam naa waxtu waa ngay waaxu kon Assane boo sàggantul xam naa ne daqaar bi rek moo ci des ñu daal di ko euh, jël euh, kii bi kon bismillaahi laay dul googu Assane sëriñ Abdou di wax man mhm. ngeen koo dagg di ko areeraat pour mokkal ko bu ngeen ko mokkul sëriñu daara bu leen jegee bu ngeen demee laaj ko dina leen ko jox ndax kaaraange la gu baax ayo daqaar gi ma ñëw ci ñaata minute essence mhm. la dese nañ juróomi minute te war sëñ Abdou war naa ñëw ci Ousmane Sonko mi ñu wax ni mhm. dana génn mook jomaay am na booy ñu génn mm-hmm. élection yi day am mm-hmm. daqaar gi naan une minute xaaj mm-hmm. ma leeral daqaar gi une xaaj laa la koy dóoral sëñ Abdou waaw baax daqaar gi moom laax la wala lu ñuy kii wala wala lan mu daqaar gi lu ci ne lépp lu soxla si àdduna xam nga bu njëkk sax nga nekkee xale dañ naan dañ naan la daqaar garabu jinne la waaw lii mooy daqaar garabu jinne la yow doom gi nga maanaam garab gi ngay wax wala doom bi lépp am na doom yi nii nga gis nii. boo si usee juróom-ñetti takk. Mm. nga xam nga ngun-ngun. ngunu. ngun-ngun ñax bu tudd ngun-ngun. bu njëkk ñun Saalum Saalum. dañ si ataaya sax comme naan jërëjëf yow xam nga. <laughs> dañ koy def ataaya mu remplace mu remplace nga naana waaw mm-hmm. sooy bu lii bu amee juróom-ñetti takku daqaar. Mm. ak ñaari takku ngun-ngun. nga boole ko baxal ko amul lenn loo si def. baxal ko ba mu di ko naan kaas suba kaasu ngoon kaas guddi. Mm. sëy doo am doo am problème mu sëy bàcc rek. Ah. kattan lu doy waar loo xamante ni yàlla dala koy. même dégg naa day yokk sperme. amul benn werante. waaw dégg naa ko day yokk sperme lépp lépp la garab yi man ji nga sooy ko. Hmm. dañ daan wax socc daqaar sax boo koy hmm? ah, na ñu na yi beneen yoon boo xamante ni booy jàng booy soccoo socc daqaar. Hmm. bala nga koo soccee benn baat booy wax di ko soccoo. boo amoon téeméeri at sa benn bët bañ di nga ko foq. est-ce que da nga gis ñoo xamante ne dund juróom-ñaar fukki at mosuñoo buddi bëj. te dañuy lekk yàpp am nañu xale yoo xam bu la ñu am fanweeri at fekk amatuñ bëñ fanweeri at kañ ñu réer la yàqu sëñ bi sëñ bi euh, nañ uti ñaan est-ce que gis nga xuluwa ya ilayya bana basi bati baatab la aana laana yëjit la woo laana gi si ngay yam nga wut reenu daqaar takk ko hmm. ku rab jàpp bu ko takkee mu takkali ko yow ku bañ rab jàpp la boo ko takkee du la jege maanaam reen bi. renu daqaar. Mhm. ngay ut nga bind xuloo ya ba si baatab laana. laana yëjit la woo waaye laana gi si nga yem nga boole ko renu daqaar takku ko. yow li nga daan daw moom moo lay daw. rab bi nga daan daw ak génn jë nga daan daw hmm. ñoom ñoo lay daw amul benn werante képp koo xamante ne bëgg nga mucc hmm. si rab ak ginne dama uti euh, ren daqaar nga boole ko xuloo ya insha allahu taala maanaam xuloo yee kese boo ko doon bind ba si baatab laana wala nga koy jàng suba ngoon hmm. rab du la ko booleentee ren daqaar bi rek laana gi si nga yem incha allah boo amoon rab dana dañ boo amutoon rab du la jàpp lépp loo xam ne xeetu naag rab ak jinne yàlla dana la si musal mm-hmm. léegoo léegi na nga gis dem daq nga dem si garabu daqaar mm-hmm. boo bëggee yàlla taal say mbir nga yëkkatale si kaw famille nga sut ñépp si mm-hmm. wërsëg si barke si fan dangay dem ba si garabu daqaar gi nga seet xob yi mujj oh. waaw am na dañ daan yëg ba si kaw nga lonk ko dagg xob bi oh. am na secret boo xob boo koy booleem teg sooy bi si alquran juróom la nga sangoo ko boo nekk yàlla ne ëpp wërsëg yàlla na ëpp tur yàlla leen ëpp barke te it incha allah secret si yoon gudd fan sooy bu uh-huh. garab yi yàlla boole ñu lépp la lépp la man moo tax sooy bu am na benn yoon boo xamante ne nit ñi mag ñi dañ koy liggéey si garabu daqaar si alal waaye nag boobu dafa xaw a ànd ak zulmaani yi mooy xam-xam bu ñuul moo tax duñ ko mën a tudd si télé bi waaye ku bëgg a tiraanga ju gaaw léegi léegi léegi boo ko defee yàlla may la ko mm. am na ñu ne jinne yi sax ñu lay financé mm. Sénégal moom lu ñu xamul tuddee ko tur waaye mm. képp ku bëgg yoonu gaaw si alal am na si yoonu daqaar bi incha allah léegi xul boo ko jàngee ba ci laana maanaam da ngay yem ci laana gi. waaw daal di koy daal di koy booleeg xuluux ya ba ci laana gi. wala laana gi képp ngay jël. xuluwa ya ngay bind ba si. wala loolu daal li gën a wóor si waaw ki ko bëgg tey moo ñëw rek. ci yow xam nga sooy. waaw xam nga damay bañ nit toog fee. ko <laughs> dañuy toog fii pour suñu yërmande. waaw bëgg ñoo xamante ni jot. bëgg waaw mais man jàpp naa ne gi nag ñëw a ci gën a gaaw. te mënuñoo jot sëñ Abdou Aziz Diaw waaye képp ko bëgg si lii yàlla defal la tawfiya. te ku ko essayé bu ñëw danaan sëñ Abdou ko joxe xam nga wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaxbudun doomu aadama lépp lu yàlla bind nit jinne yàlla ñooy lu leen lu tax yàlla bind leen jaamu yàlla kese la gis nga asan nit bu tegee tànkam fi mu war a tënk yow yaa gën jinne yaa gën malaaka bu doon ne jinne moo gën doomu aadama yàlla bu yóntu yàlla moom salaa da koy def muy jinne comme que yàlla yónni yonent bi salaa def ko mu nekk nit rek loolu gën ndax yonent bi lu mu nekk rek moo tax nit moo gën jinne nit a gën mënaak ba a bàyyi am na ñoo xamante ni Ah, ah, am na ñoo xamante ni. tijaate ay doomu aadama lañ waaye iblis leen gën. waaw waaw ci réew mi waaw waaw. Ah, booy ñu leen tëjoon daa bari de booy waaw xam nga leen. ki muy wax ñuy wax ñi ñi tëjoon booy déet waxu tudd lool de. ma ne am na si réew mii <laughs> ay doomu aadama yoo xamante ni iblis leen gën. dëgg la ndax doomu aadama mooy xarul bariya. Mhm. moo baax ba lu yàlla bi ni gën si. waaye nag mooy sarul bariya moo bon ba gën a bon iblis. macha allah nit. macha a ko wax. mi ngi noonu sëñ Abdou bala ñoo ñëw ci actualité bi nag mhm. am na ab question boo fi bàyyi woon. Mhm. Assane bu dee yaa ngi cent fàttaliku 1444 daloon naat. lañ lay jàpp. bu ñëw si ay turi. ay turu doomi aadama turi sell mhm. maanaam ñi ngi njëkkee woon sax ci mhm. baat maanaam ci ay aaya ñu trouvé ko mu ñëw laajati mille quatre cent quatre mille quatre cent quarante quatre lan lay jàpp ci ay turi doomi aadama yu sell def naa yow ak keroog am nga boo ma envoyé léegi nag ki koy yónnee kii maanaam capture bi euh, kooku noonu am na ku ko trouvé ajjuma jii di ñëw mm-hmm. dinañ lim tur yooyu mm-hmm. bu aajee ñu wane euh, capture bi ndax kooku deful numéro yaakaar naa mm-hmm. yow ci tiktok bi nga ko jëlee wala yow lañ ko envoyé ah, ah, waaye gis naa ne euh, ak dugal na ko si si sa page dugal na ko dugal na ko si si commentaire yi laa ko gis d'accord mu turee ko mu mu nekk turation boo xam am na solo lool ni ñu ko soxlaa noonu la ko indee incha allah cent mille francs yi moo ko moom waaye bu damaa bëgg tamit euh, bii di ñëw dama bëgg joxe ñetti ko tudd Hmm. ñaari danaa ko tudd benn bi ku ko xam hmm. lum jàpp si ay ismullahi azam hmm. danaa la jox de cent mille amul benn werante jërëjëf. <laughs> bu joxe saa jërëjëf bisimilah. aywa également bi kenn du bi ngi noonu kon sëñ Abdou Aziz Diaw mi ngi ci Thiès numéro yaa ngi noonu su fekkee nag bëgg nga euh, def ni man man moom du ma jéem a sax bindantoog li muy wax man su ma amee lu ma jaaxal damay dem ci moom kon boog di jéem a bindantoog yi mën naa am affaire bi am lu des. boo juumee kay am nañ ful la i <laughs> moo tax may li gën a wóor rek luñ fi waxtaanee <laughs> eh, eh, woo ko su su la mënee eh, dimbali ngeen dimbalante daal ci tur yàlla ndigal ndigal day dimbale doomu aadama oh. te nit ñi lu bari lu leen fànk mooy teetur yàlla te amoo si ndigal voilà day gàllankoor doomu aadama aywa kon ñu dem Assane ci li ñuy waxtaane muy actualité bi def naa ne benn la Ousmane Sonko ñu ngi ruumandaat ni ala kulli xaal mën nañ ko bàyyi ci fan yi di ñëw mook jomaay mm. booy bàyyi nañ lu tolloo juróomi téeméer ak lu ci topp moom mii bi mu fi mujjee waxoon na bu ñu ne waaw bari na daal yi mu ci doon junj mm. xam naa foofu ngay duggee bala ñëw tëj waaw sëñ Abdou comme ni nga ko waxee woon ak li nga ñaanoon président Macky Sall si mm. ay mujjantal dafa mel ne mi mm-hmm. ah, mm-hmm. bu baax nit boo nekkee di ñaan mbir ba li nga ñaan nga gis ko la si tegu mooy alhamdulilahi rabil alamina hmm. ndaw ñi nga xamante ne dañ leen a téewoon si prison ñu nekkee fa lu métti nekk waay bu métti ñu dem ba livrer leen si jàmm ñu delluwaat seen i njaboot ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin tey nañ nañ bañ a découragé uh-huh. te doomu aadama yàlla da koy teg nattu te kum nattu dana la nattal te kum nattal nga bëgg uh-huh. am na nitu yàlla yoo xamante ne si biir kaso si lañ jotee seen maqaama am na ay yonentu yàlla yoo xam ay nit ay yonentu yoo xamante ne si biir yàlla si biir kaso uh-huh. si la leen yàlla yónnee kon dafa nekk loo xam ne jombul kenn am na ñoo xam ne génn nañ kaso rek falu waaw si àdduna am na ñoo xam ne génn nañ falu si kaso falu si peew yàlla bi mm-hmm. ñaari maqaamu yëpp am nañ mooy kon ndaw ñi nga xamante ne jàppoon nañ leen si kaso gi yaa fa suñ sàgganoon nekkul nit ñu bon nattaloon yàlla jeexal na natt bi nañ continuer seen vie continuer mm-hmm. ñaamaat amaat li gën li gën loolu mm-hmm. sooy euh, mbiru àdduna mbiru nguur yi doomu aadama yoru ko yàlla yor yàlla rek a ko yor Macky bi bii daan dogal lu mu dogal kenn du ko teg baat bu ñu demee tey ba ne mu waxoon ne élection yi day puus wala day nangam waa conseil ñi nga xamante ne kaddu Macky Sall lañ doon dem na ko lii du fi amee. Mm-hmm. nga dégg la lu yàlla may doomu aadama bis dana ñëw dana ko nangu. ndax nguur yàlla rek ko man mm-hmm. bis penc bu yàlla rey ñëpp bañ dee nguur yi président yi sëriñ si ñëpp dee yàlla teg xaalam bi xaalam ko jàkkaarloo pays bi di wax ak moom mu ne leen li ma leen mën ko yow wallaay wallaay tey mm-hmm. du yëngu du yëngu sëriñ si du yëngu kenn du yëngu ñëpp nag xeraw na seraw dara du fi nekk yàlla delloo si bo delloo kàddu gi boppam na lillaahi waahidul xaar na ko buur yàlla rek a ko ne nguur yàlla rek a ko moom uh-huh. moo tax li la si yàlla compal dénkal la ko dee ko yërëmee jaamam yi ndax bis penc nga mën a sowe uh-huh. gis nga sowe sowe bu uh-huh. yonent yàlla Suleymaan yërëntu la waaw yonent yi danañ dem aljana 40 ans moom mu door a yegsi lan moo tax yàlla téye ko mooy di régler li mu doon diggal jëflante jaam yàlla yi yow yàlla dénk la réew ngay not jaam yàlla yi wala yàlla dénk la réew ngay ngay tuur deret bis bañ ko léegi sa borom moo tax Macky Sall ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko tawfeex kon baat deret bu tuuru dana ko ah, layoo ah, bis ba amul benn weer hmm. lépp lu xew si réewu bis dana ñëw yàlla teg Macky Sall defut sa mandat bi da koy lijjanti amul benn werante amul benn amul benn werante moo tax hmm. képp ku yàlla dénk nguur wala nga dem gistu taarixu Sidina Omar wala nga dégg taarixu Abdou Omar bun Abdou Aziz eh. mag yow président ndeysaan mi ngi nii tegal nañ la ko maa ngi lay wax tafakkar hmm. qabla an tadam ah, qabla an tanaddam fa innaka maytun faalam wallaay wallaay lépp loo bëgg a jël rek na nga xalaat mm-hmm. njëkk réccu di si topp ndax sénégalais lu mu la may bu subaa mu nangu ko ah, moo tax li wasaawirum fil amri lépp looy def del waxtaan balaa kàddu jug ndax mm-hmm. kàddu dafa foor ba xasee jug moomu doo ko ah, moo tax président wu def na wax naa nangam ñi dindi lim wax lu mu metti la moo tax ñu koy ñaanal yàlla defal ko tawfiix sooy bu fal ak folleeku nekku si loxoy doomu aadama si yàlla la nekk chaque jour nit ñi dañ daan wax affaire bi jeex na di lii xew na mën nañ nañ tool nañ toog te dal te ñaan yàlla gis nga am na loo xam ne si mbiru yàlla la nekk mhm. Macky Sall dafa am lu yàlla rëdd si jë a am am na leneen li si tegu nag mënutoo mënu ñëw élif démb élif ñu tey mhm. Sénégal vie bi kenn xamu ko mhm. moo tax ñu ngi koy ñaanal tamit mu gën a yolomal génn Bassirou Diomaye Faye génn Ousmane Sonko Sénégal yi ñëpp ci nekk si jàmm gis nga ñetti fan yi rek Macky mën naa réglé réew mi ñëpp di ko tàccu ñëpp di ko tagg ñëpp di ko féetee ndax sénégalais mën naa jàpp mën naa mën naa mer waaye du jàpp mhm. barki démb ñëpp doon mere conseil constitutionnel waaye démb ñëpp leen ko ñëpp leen bëgg a xañ na ñu jaamu du am jàmm ku leen a xañ jàmm amul benn werante mhm. dafa am loo xam ne moo fondement réew mi te nit ñi gisuñ ko mhm. loolu nag leneen la moo tax nañ yéene jaam yàlla jàmm rek pour ñu am jàmm bu ñu rek jàmm mënuñ ko am macha allah incha allah. jërëjëf sëriñ Abdoul Aziz Diaw moom la ñu dalaloon tey jii mbokk yi daanaka ni am nañu fanweeri min minutes yu tegul akus lëf ndax lii lañ daan seq ci ab jotaay Baye Assane sànq ne bu sëriñ Abdou wax yaa ngi koy ruubee naan ak ñu dàq bañ mar fii moom ku dàq bañ marit nga naan rek. Omar non non garaaw garaaw yàlla bari na sutura inna rahmatallahi xaribun minal rek ëllëg moom nee nañ yàlla kenn ku nekk dana la woon ni la ni nga yore woon noo jiitee woon waaw ko danaa dàq askan wi de ñu daan daw bay bëgg de bu ñu bu wax ñoom ñëpp dañ maa ragaloon lool waaw may santaane rek ñu jàpp di leen tëj ma dem nag ba xamatuma sa dara ma doog leen a bàyyi te defuñu ma yàlla bari na yërmande déedéet yàlla yàlla moom loolu moom il mu nga ni yàlla il faut mu régler loolu yàlla bari yërmande waaye ku maandu la yàlla dina ko woo wooñu dund dund président sàll bi képp kuy nit tey xalaat war nga see xalaat na yàlla mayewu dara dafay abale démb démb rek fi mu jaar pële say xàll kenn du jaar kenn du am fit ginnaaw suba rek mu bokk yow tali bi wala kala sonee nga kala sonee ko te du mujju fenn dëgg la de te amoo fit boobu moo tax lu la yàlla dox rek dénkaane la bis dana ñëw yàlla tee ko insha allahu taala moo tax jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy ñaanal nag yàlla defal ko tawfiix ndax jàmbaar la te liggéeykat la waaye yërmande lañ gën a nëgg gu gën a yaatal jëmale ko si askan Sénégal insha allahu taala bu dul lii moom président ki daq ko liggéey président ëpp ko ambition ñu ngi koy ñaanal yàlla tamit ëllëg mu nekk si président bu war a toog si réew mi Macky la conseil eh, eh, ndax xam-xam eh, ma ne non non yàlla xam a a am na am na loo xam ne am na loo xam ne daa sonn nañ ko noppal am na loo xam ne nekk na si bopp bi te nekkul si bopp bi xale yi nekk si bopp bi mooy li ñuy bàyyi gone yi ñuy bàyyi nañ ko bàyyi rek ëllëg mu ñuy conseil loolu baax na ma ne boppam li si mujj mooy bàyyi gone yi ñuy génn ndax dafa am benn buur boo soñ bu ah. ñu tëjee fa mhm. dafa xëy rek wax waa dëkk bi ne leen magi dëkk bi laa bëgg ñu reyal ma leen mhm. ku dem na nga rendi sa baay waaw hmm. waaw gars yi xale yi ak dof ragal ragal buur bi ku àgg rek rey sa baay waaw ba buur bi toog ab digg ne leen ana mag yi ñu ne ko ñëpp jeex nañ mu wax xale yi dëkk bi ne leen damaa bëgg ngeen fonda ngeen tabaxal ma tabax boo xam ne si air bi ngeen koy fondement mhm. si air bi ngeen koy tabax waaw xale yi jaaxle mu ne ko da ngeen ko def wala ma rey ko wala ma rey leen yéen waa dëkk ah, muus dencoon na baayam dugal ko si biir rol ga rey ko mu ñëw wax baay ji ne ko am ah, damaa tiit mu ne ko lu mu ne ko buur de moo ñu nañ ko tabaxal tabax boo xam si jaww ji lañ koy tabax hmm. te buñ ko defu danañu rey ñun waa dëkk bi yépp baay ji ne ko loolu amul problème demal na ko mu ñëw rëdd fondement bi waaw ba mu ñëwee buur ne ko buur loolu mënuñ problème loolu amuñ problème ñun boo ñu santee dara dañ ko def waaye kaay rëddal ñu fondement bi buur bi ne ko seen baay am na ko des moo tax mag mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla macha allah jërëjëf jërëjëf sëriñ Abdoul Aziz Diaw jërëjëf Baye Assane Mesre jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen doon bàyyi xel ci biir ak biti réew am nañu mbégte jàkkaarloo yéen su nekk gërëm bu baax a baax Ablaye mi nga xam ne moo nekkoon ci réalisation bi Alaaji di Diouf Abdou Tobak euh, Sëriñ fàll Gumba la jox leen ab dikk ba beneen yoon asalaamaaleykum aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.